asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 30 décembre 2020 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu lamb li ñuy xëy doore ko tey yëglikaay bi di suñu lamb tey xëtam mu njëkk lam ca xëy fesal lenn la maanaam daal ka ca xëy fes mooy Serigne Mbacke Ndiaye nekk ci diggante Modou Lo le roi des arènes ak adversaire am ba nga xam ne moom moo di Ama Baldé Serigne Mbacke Ndiaye nag tey moom moo xëy ngardaajoo yëglikaay bi ancien ministre ba daal la mu xëy di xamle daal dana li am ba des daal bu dee jiite CNC moom maanaam nekk président am Serigne Mbacke Ndiaye ne loolu moom bu ko kenn xaar ci moom ndax nag parewul ngir jiite li nga xam ne ni moom moo di lamb ja waaye tamit wax na lu yaatoo yaatu ci li nga xam ne nii moom moo di làmb ji ca la nga xam ne moo ca war a am ci huis clos lu mu jàpp ne daal wares na koo mën a xool te def ko waaye ñëw na ci ñaar ñoo xam ne dañoo bokk nday ak bàyyi te ku ci nekk marqué sa empreinte ci làmb muy Mbaye Guèye premier tigre de Fass ak rakkajat Moustapha Guèye deuxième tigre de Fass sëñ Mbacke Ndiaye nag ñoom ñaare nañ yemuñu ndax daa jàpp ne moom bu dee ci côté bëre la rek xam-xamu bëri technicité nee na la ca Tafa Guèye denc Mbaye Guèye dencul xaaj ga waaye jàpp na ne bu dee ci courage ak jom rek ne na la ca mbay géey denc itam Tafa Gueye dencul xaaj ga jàpp na ne daal kon ñoom ñaar lii moo leen wutale ci wàllum bëre maanaam xam-xam ba moom Tafa ko yor waaye fit waa courage ba moom ak jom ja mu nga ca nga xam ne moom moo di mbay géey sëñ Mbàkke Njaay moo xëy tey waxe noonu wax na ci diggante Abdoulaye Wade tamit ak waa écurie Fass jàpp na ne Wade ba mu ne cëpp commencé politique daal jàpp na ne ñoo ko njëkk a jàppale écurie Fass la ca jamono jooja ne na bokkoon na ci koo ñoo xam ne nii daal moo doon mbay Cissé ak ki nga xam ne mooy Ali pap kan bu fas ak Assane Diop dëkkoon ca kaam nee na moom bokk na ci ñoo xam ne ñoo njëkk a jàppale Abdoulaye Wade nekkoon ay garde du corps am ca jamono jooju nga xam ne dugg na si na ci wàllum politique bi ba tey moom sëñ Mbàkke Njaay rek ci waxtaan wa nga xam ne seq na ko Ibakan la mu xëy de xam ne bokk na ci ki nga xam ne moo di Abdoulaye Makhtar Diop Gaston Mbeng ak Aline saar moom jàpp na ne maanaam fa ñu yóbbu lamb ci kawe ak fañ cër ban ko jox tey ci àddina bi dana jàpp na ne ñii daal fi mu nekk nii moom les leen faye sax est-ce que na ko loolu la xëy tey di ko wax yemu ca de ne na wàllum roi des arènes tamit wares naa xool nes koy jéem a identifier maanaam ña nga xam ne jàpp nañ ne war nañ koo xëccoo ñu bool leen ci benn groupe maanaam dafa leenub championnat ñu bëree ko mu leer wala bokk mu gën a leer sëñ Mbacke Ndiaye ba tey moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu pandémie bi tamit wax na leen ak lu mën a xewit daal war warta tax ñu war a mën a bañ a organiser sëñ Mbacke ba tey moo xëy di wax moom sëñ Mbacke Ndiaye Ama Baldé itam wax na ci moom sëñ Mbacke Ndiaye la mu xam ne daal nee na Ama daal mbër la moo xam ne mën sëñ Mbacke Ndiaye daal ku ko bëgg laa ndax nag jàpp na ne wàllu kuraasam jomam ak gëm-gëmu gëm boppam daal la sëñ Mbacke Ndiaye xëy tey di wax mel ni kon sëñ Mbacke daal waxtaanu mu seq yëglikaay ba tey yaatu na lool moom sëñ Mbacke Ndiaye ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi keneen ko xam ne xëy na fa di wax muy docteur ki nga xam ne moom mooy doctor docteur Thierno Abbas Ka di médecin wu làmb ji moom daal la mu xëy di xam ne daal nañ am ba des daal maanaam 72 heures balaa lamb di am wala balaa mbër yay bëre daal juróom-ñaar fukki waxtu ak ñaar daal balaa bëre bay am moom des na testé mbër yi xool ba xam ndax ñoom mbirum corona ba mu nga ca ñoom wala nekku ca ak ña nga xam ne nii tamit ñoo leen di gunge ca lamb ja ak CNC ba ak arbitre ya ak la nga xam ne nii daal ñoom ñoo di ña ko war a taxawee yëpp nee na buñ ca yeggee daal ñoom ñu ñëpp ku ci ne 72 heures balaa mbir yay am des la xool sa wér gu fan la toll ki nga xam ne nii moom wér yaram yaramam fi mu nekk nii maanaam metti na lool wala boog boo bëggee dégg dëgg daal ah waaw wér gi yaram nga daal foo ko tak ci ak ñàkk wér yegg na fa muy jibi ama jibi ama nag loolu kaay bi xëy na tey wax ñu wan ñu koo xam ne ni daal ancien ministre de l'intérieur la woon di Aly Ngouille Ndiaye na fa ñu ñu ko ci aw photo mu ànd ak Ama Baldé yëkkati lu toll ci ñaari million dimbalee ko ka nga xam ne moom moo di jibi ama na ko ñoom Aziz Ndiaye ak ñoom Wally Seck ak ñeneen ak ñeneen defe daal mu ni ki moom Aly Ngouille Ndiaye tamit desul ginnaaw loxoom ca mbir moom nga xam ne ni daal moom mooy mbiru jibi ama waaye am na ñeneen ñoo xam ne tamit dugal nañ ca seen loxo ca mbirum jibi ama ñoom ne moo di na tey wax ñu lu mel ni ki noonu mel ni ki nag délégation ba riisoon na lool ndax gisoon ñëpp daal ñu ngoon ca délégation ba ñoom tamit mu mel ni seen loxo dugal nañ ko ca mbiri jibi ama fas ku yéene jàppale daal ngir feebaram boobee nu ñuy def mu tàqalikoo ak moom keneen koo xam ne ni moom xëy na di wax muy Malick Ñing mi jiite la nga xam ne ni daal moom mooy école de nit yeeg écrit yi la mu xëy di xam ne daal nee na lamb des daal mbirum waxtaan wi ñuy def boobu ba tey jëmale ko ci lamb ji ak maanaam séddaleem wàllum fooya maanaam weccat yaag yooyu jàpp na ne ñoom itam day wala su leen caa fàtte de ndax nag dañ caa war a bokk ndax lu tël waalam lu def waxu lu aay di njàmbat te ñoom li defu waxu du kenn ku dul ñoom ndax nag ñoo jiite écrit ak école de nit yeeg Malick daal xëy na tey wax loola buñ fa jógee dem fa nga xam ne moo di ca record record moom la mënu xëy di xamal maanaam daal huis clos ba ñu wax ci làmb ji waa làmbi simple ja moom la ñu jàpp bu leen kenn wax tey huis clos suba waxi noppi ndax defuñu ko tey suba waxi noppi ndax jàpp nañ loolu moom su amee làmbi simple ja day dee te itam jàpp nañ ne daal loolu ñu koy wax ñoo la gën a xam ne làmbi simple moom mënee su ko huis clos duudu fay ma jiite maanaam amateur yi daal jàpp na ne loolu moom lu mënta nekk la moom duudu fay loolu la gis mbay mi nga xam ne ni tamit moom moo di mbay kalum tamit di chroniqueur tamit nekk ca Ndefleng FM tamit jàpp ne daal huis clos moom du lu mën a ne ci lambi simple Abdou Waxal nekkoon ancien mbër tamit nekk promoteur léegi tamit jàpp ne daal fi mu nekk nii moom huis clos moom moom itam gisul lu mel ni kii noonu huis clos moom ànduñu ci tey suba waxi noppi mel ni kii nag fa nga xam ne nii moo doon ci Adrien Senghor moom maanaam samedi jii ñu génne sargal Boucar Ndour ba fa am bu Lutte TV mel ni kii daal mbër ya wuyu si woon nañ ko yëglikaay bi di record xëy wax na ko mel ni ki ordinateur ñëw na fa Kuyen Saba Lamsaar ñëw na fa ak nga xam ne nii daal maanaam bëriwoon na ay mbër yoo xam ne daal ñëwoon nañu ca nga fa nga xam ne mu doon ca sargal bukar ba rëg-rëg mu caarooy tamit desul woon ca xew ma moom itam teewoon na ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko saaku ci yéen waa di ñaanal fépp fu doomu sénégalais nekk rek ci addina bi jàmm ak foo mën a ne à travers le monde waaye di ko ñaanal bépp doomu aadama waa parce que jàmm moom ci la lépp xaj ah te naa ñu ne sëñ bu mag bi si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yàlla na yàlla yokk leen taaf ñu si barkeem daan na wax ne du doy fii ci àddina waaye ëllëg yow mal xiyam nga ñu jëm tam du fa doy kon yàlla nañu yàlla defal jàmm ci biir ak ci biti rek waaw barke yonent bi sallallahu alayhi sa sallam di nuyu ñëpp di bëgg ñëpp di siyaar ñëpp ñaan ñëpp jàmm waaye tey nag ah xulle gis nga fi ma génn tey ci blouson waaw gis nga naayik bi ak esine bi blouson naasi la AS Naasi Lorraine sama international ba Saliou si sama rakk jooju latéral gauche équipe nationale moom ma jox blouson bi ndeysaan ma koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm waa di nuyu famille yëpp rawatina papaam Demba Ciss maa ngi koy nuyu di nuyu papaam tamit Ibou Ciss ak rakkam di nuyu famille yëpp daal waa di wax ne moom vraiment yàllaa ñu boole muy sama rakk waaw jàpp ma lool Saliou Ciss l'international borom AS Nancy Lorraine maa ngi lay ñaanal daal carrière ba Roberto Carlos def ci wàllum latéral gauche ci Real Madrid yàlla na nga def bu ko raw yow Saliou Ciss te am nañ sportif nga te itam macha allah li ngay def mën nga ko trop macha allah di la nuyu di yépp nag du ñu fàtte kenn waaw loolu mooy tey loo xam ne dinaa ko ubbee bi nag sunu làmb fa la ñu jëm si ah euh, xulle maanaam sëñ Mbacke Ndiaye ancien ministre jamono Abdoulaye Wade ah sëñ Mbacke Ndiaye doomu xombal ndax di defe naa mu ngi dëkk diggante xombal ak kaba ci zone yooyu waa tey daal mu xëy tey di ngardaajoo yëglikaay bi Cheikh Ibakan waxtaan bu yaatu maanaam mbirum jiite CNC moom jàpp na ne moom parewul ngeen def loolu ah waaw daal loolu moom ah mbir nit moom ngir pare woo ngir jiite benn structure moom defe naa kenn du la ko forcé waaye nag xëy moom itam dafa nekk nit bi nga xam ne ci boo xam ne vraiment bu ñu wax la parce que ñun sëñ Mbacké Ndiaye xamuñu ko wala ñun xamuñu wala buñ ku jege làmb la seen conférence de presse su ko neexoon mënoon na fa bañ a teew mais teew na fa vraiment soutenir leen jàpp leen te loolu tamit dañ ko soxla waaw dañ ko soxla parce que li muy ñëwam ci làmb toogul ba ñàkk nguur rek di ko def non non da ko daan def bi muy nekk ci nguur gi loolu ñun ñu gis la vraiment parce que duñ ne kenn yàlla ngi lay nuyu te gisuñu moom sëñ Mbacke na lu yaatoo yaatu diggante Tafa Gueye ak Mbaye Gueye jàpp na ne bu dee ci côté bëree xam-xamu bëree na Tafa Gueye moo raw mbay Gueye waaye bu dee ci fut fit ak jom ak fuggu ak courage ne na Mbaye Gueye du ci moromu Tapha Gueye loolu nag bëri nañu ko wax te defe naa loolu boo xoolee seeni carrière ñun xëy na seetaan nañ ci Mbaye Gueye lu bëri mais boo gisee Mbaye Gueye même bi nekkatulee mbër sax di encadré di nga xam ne kii moom ku am audace la Tapha Gueye nag xam-xamu bari tolloo kook moom dana jafe lool waaw loolu moom defe naa sëñ Mbacke ñu bëri nañ la ko nangul waaw loolu moom wax na ko Ama Baldé Modou Lô tamit jàpp na ne moom mooy combat du siècle loolu la ko jàppee waaw Ama it ne mbër mu mu bëgg la maanaam daal waxtaan wu yaatu seq na ko tey ak yëglikaay moom sëñ Mbacké Ndiaye ku bi suñu lamb di nga ko fa fekk docteur Thierno Abbas Ka médecin wu CNG maanaam yore lamb moom ci wàllum paj ma ah nee na balaa mbër yi bëree sa guddi bëri xulle 72 heures danañ leen defal ay test kon mbër yi moom nañu jàpp loolu maanaam balaa ñoo bëri ñoog ña war a arbitre yaag waaw ak médecin yaag ña yore wàllum CNG ba ñëpp danañ leen testé waaw parce que comme Covid la ñu wax te dañoo jël ay mesures barrières faw protocole sanitaire boobu ñu wax yi da ciy bokk testé mbër yi testé ñeneen liñ leen di ak yu mel noonu pour mu leer nag ñay dem ca arène ba moom kenn dara jotu la ci su ko defee ñu mën a sëgg bëri parce que nag olof ak wax fagaroo gën faju kon docteur ñu koy nuyu di ko ziar bu baax a baax kon daal gars yi jàpp leen loolu ba tey mbirum jibi ama tamit vraiment ñuy rafetlu sest bi nga xam ne moom la ci ancien ministre de l'intérieur def muy Aly Ngouille Ndiaye Euh, sama waajo da koy wax Saliou Khoule Musique FM nee na Khoule koo dimbale te tane woo ko yéen ñaare yam kon defe naa ancien ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye doomu Linguère bu ñëwee tey jàppale Jibi Ama ci feebar boo xam ne tëral na ko te am xaalis bu ko war a faj ñu di ko dajale boobu ba tey mu tëamat moom mu ñëw dugal ci ñaari millions du ñu mën a def loolu ne ko jërëjëf parce que tamit lii lañ leen di doy seen seen yéen suñu autorités yi da ngeen gën a jege askan wi wàcc na dem na Pikine gis nañ ko mook Ama Baldé ci aw photo muy loo xam ne vraiment lu ñuy rafetlu la trop Aly Ngouille Ndiaye ñu koy nuyu bu baax a baax mais tamit di ñëw ci yëglikaay bi ba tey ak sunu làmb ah Malick ñi ngi mi jiite école yi ak écrits yi moom tamit ah xëy na di wax ne ñoom itam dañ leen war a boole ci wàllum waxtaan wi ak itam bu fekkente ne lu ñuy séddool parce que tamit dañ cee bokk effectivement parce que defe naa ne écrit bu fi taxaw na ma ko waxee démb ak école rek am na président kon defe naa itam bàyyi leen xel da ciy baax trop trop trop ñoom ñooñu waaye ba tey mbirum jibi ama moom tamit dama ciy waxaat rek parce que waa de euh, ëttu ëttu làmb ah, waaw waa waa waa waa waa waa waa lamb jaspora waa lamb diaspora la ñoom maa ngi sax jum waa lamb jas waaw waa ëttu lamb ji waa ñi nekk ci diaspora bi ñoom ñoo dajale plus de cinq cent mille wala cinq cent mille francs yóbbu ko fa muy loo xam tamit lu am am solo ba tey mu won la ne rek ah gars yi vraiment daal mention spéciale daal loolu ñu ngi leen ci encouragé ñu leen ci ñaanal bu baax di wax ni bég nañ ci waa diaspora bi parce que diaspora bi dañuy dund làmb te vraiment dañ ciy participer kon loolu ñu def tamit ànd kook ñi nekk fii ñoom mobile gis nañ leen ci mbër ñoom suñu papa Omar Ngom Sall Bigué ñoom ñépp gis nañ leen ñu jàpp ci loolu am na solo trop record ñëw na tey ci mbirum huis bi laaj na ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di acteur yi ca ne ñoom nag daa mel ni ñoom ñépp boo leen déglu amul ku ànd ak mesure yooyu ñu gars yi bëgg a def maanaam huis clos làmbi simple moom mën ci huis clos làmbi simple moom buñ ko huis xaw ma nu muy demee bu keroogee dana doy waar waaye nag ah ku amul la nga bëgg am la fa sës loolu la olof yi lépp waaye doy na waar daal ndax lambi lambi simple moom daa nekk benn façon lamb boo xam ne dafa am différence ak lambi dóor dafa am benn différence parce que lambi simple mise ngay teg boo tegee mise am a dugg nañ ah cinquante personnes dugg benn xaaj bi bañ a dugg bu ko defee ñu fexe ñu sorante ñu tëgg defe naa loolu tamit doon na tane mais buñ ko tëjee kenn kenn kenn du seetaan moom ah dina doy waar waaye nag comme li ñu wax rek waaw ah, ku amul yaay nàmp maam loolu fi ñëwoon tey ci kaay yi di leen bëggee di leen ziar di leen ñaanal jàmm suñu xarit yi nekk ci diaspora bi ñoom Ndongo Fall ñoom Mbacke Kebe yaa ngi dégg ñoom Balla Gaye Italie ñoom ñëpp ah ñoom tuuti yaay Sarr Baye Zal Paris dafa Ndiaye nekk ci Espagne ma koy souhaiter joyeux anniversaire moom tamit le premier lay fête anniversaire am ah, di suma dëkkandoo di suma mbokk parce que ñoo bokk bawal depuis Espagne ma koy nuyu di nuyu maam Libas loolu depuis Espagne moom tamit maa ngi koy bëggee bu baax a baax di nuyu tamit ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci jaspora bi daal suñu gars yi ñoom Abdoulaye Mbaye depuis États-Unis ah ñi nekk Dabaax Norvège Seydou Côte d'Ivoire ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee fu ci di nuyu waa Gambie xarañ bu Gambie maa ngi lay bëggee bu baax a baax Demba Xarañ bu Gambia maa ngi lay bëgg di nuyu ñoom Jibal Touré Gambi ñoom Père Ndongo Cissé ñoom ñëpp Gambia lañ dëkk di ay sénégalais Fatou Sarr nekk foofu ci Gambie moom tamit maa ngi di nuyu xam ne ah amunu dul ñoom parce que di ñoom ñëpp ñoom Massamba Dieye Sora du ma ci fàtte kenn ku fa ne les jeunes amateurs tamit maa ngi leen nuyu di nuyu ñoom du ah, jaan képp ne ci làmb daal di ci yëngutu maa ngi lay nuy ñoom suñu grand ah ñoom ñëpp maa leen di bëggee daal ñoom ñëpp ñëpp nuyu naa leen xaaya géy ñu fàtte kenn di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm xule di la bëggee di joxe rendez rek gars yi suba incha allah rabbi ci beneen revue